asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi Safinatou Touba ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar bu baax ginnaaw bi ngi sante yàlla ci bis bi nga xam ne jàll nañ ko si jàmm ñu le quatorze mai bi nekkoon tudd yàlla ak ñaan yàlla ak bernde sant mbokk yi fa yëpp incha allah taala te di leen ñaanal jàmmi àdduna ak wala te fajug aajo biir ak biti ci barkeetu salaa salaam tey nag mbokk yi dañuy indi fi wàllu mbooloo bayre njaay wala ku yor place te bëgg nit ñi dafa ñëw wala sëriñ boo xam ne da ngaa am bërëb dafa yëngoo te bëgg ni ñi di la dikkal mooy xaatim boobu ngi gis murabaa boobu def doomi ramli yi waaye mbokk yi balay loolu ñu fàttali leen groupe whatsapp Sagaratu Touba mi ngi dox ku bëgg jàng xam-xamu asraar inscription bi vingt mille francs la mensualité cin mille francs ba tey groupe madinatul asrar muy université bi moom it kazalika mi ngi dox inscription vingt cinq mille mensualité vingt cinq mille waaye moom nag dafa may charte yu tax nga mën cee dugg il faut nga am tuuti niveau ci asrar benn bi aussi mooy groupe latif zikar latif gratuite la ndax ay dogu zikar lañ fay joxe ku bëgg a dugg aussi soo wootee ci numéro yi di nga dugg soobee yàlla kon mbokk yi kitaab Majmua Chagrat Touba mooy tome un ba sept mille cinq cent ba tey mooy prime changé wul kitaabu Chagratul Xuldi mooy tom deux bi version arabe mu ngi jar soixante mille def cent deux secrets yu peng ca biir secret yooyu nag secret faatihatul kitab 666 bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy wër mi ngi ci biir secret barhut xamsuna ilaa waaxit 49 xaraf yi nga xam ne bokkut ak yi nit ñi miin mooy 49 xaraf yi génne ci fardu jabbaaru shakuru sawaabu zahiru xabiru zakiyu kooku mooy xaqiqatu barhut ma nga ci biir secret laa ilaha illallah 1162 ma nga ci biir ak yu bëree bëri kon mbokk yi képp koo xam ne bëgg nga ci yooyu rek boo jokkoo ñu incha allah di ko mën a am ba tey saafara yi ci wàllu ubbeeku ndomba yi dox ci wàllu kaaraange ak bayre jaaro yi lépp a ngi fi incha allah taala mbokk yi tey xaatim boobu fekkee nit ki dafa bëgg am bayre place da koy bind comme ni mu ko gisee kamatara boo xoolee ñeenti doom yi ci kaw aadama la ñeenti doom yi su feete suuf ibrahima la ñeenti doom yi feete ci suuf suuf musa ñeenti doom yu féete ci suufa suuf Yunus la kon ne xam na Aadama day dox ci nit ak ngëm-ngëm waaye Ibrahima dana dox ci aw yoon Moussa dana dox ci mbooloo Yunus dana dox ci xaalis te kon képp kuy jaay yii rek nga soxla woo wala képp kuy ut ay nit yii rek moola la yitteel ku am nit ñi ñu lay demal ak dikkal di dajaloo fi sa bërëb di la jox xaalis léegi tey li nga bëgg nga ko su ko defee wa ajin fi naas bil xaj yaa tukka rijaalan moo koy wér doo egg ci wa ala kulli daamirin déedéet wa ajin fi naas bil xaj yaa tukka rijaalan rek moo koy wër soo paree nga def ko téere bu ndaw takk ko ci buntu place bi bu neexee nga defal ko bind ko beneen téere def ko sa kalpe chaque boo xëyee yaa ngi liggéey wa ajin fi naas bil xaj yaa tukka rijaalan seize fois waaw chaque jour boo xëyee loolu ngay liggéey wa ajin fi naas bil xaj yaatuka rijaalan seize fois nga daal di ñaan si soxla incha allah di am nit ñi di am client yi salaamaaleykum wa rahmatullah